waaw je pense que euh, wax nañ ko sànq euh, euh, ndoxu dakaaru dafa dépendre ki yu bëri mais ndoxu dakaaru fi muy jógee sori na lool presque trois cent kilomètres fële ginnaaw Louga Kër Momar Sarr wante doyul ñu ñu koy mottali ak ay forage mais gis nañ tamit ni forage yi mu ngi gën a am doole si ndox bi ñëw dakaar mais gis nañ tamit ni forage yi tamit euh, pexe ndëgandiku la mais euh, gis nañ tamit ni Dakaaru macha allah ah lépp lu ko wër nit ñi gañ fee gën a bari lu normal la ndax mooy capital bi on note peu près nit ñi gañuy yokku de 6 pour cent euh, téeméer bu boo jël juróom-benn nit ñi dinañ koy yokku. wu jot terewul moo tax gouvernement wu Sénégal tënk projet bu yaatu projet boobu pour que mu mën a muy projet boo xam ni dina mën a assurer dina mën a tax euh, jafe-jafe ndox daal su fi jógul yitte dina lekk loo xam ne dina fi tumuranke ay at yu bari bari moom mm, mooy li président ñëwoon fii si Thiès inauguré euh, lancé travaux yi am na ñaari at si gannaaw muy ñetteelu usine Kër Momar Sarr muy usine bu mag a mag a macha allah li liggéey bi sori ngañ si lool am nañu yaakaar ni fii ah ay weer dina sotti avant deux mille vingt et mais balay booba ñu ni il faut ñu ne ay pexe moo taxoon gouvernement bi ay juróom depuis juróomi at mu indi ay pexe ko ay pexe. nga ñuy wax ay programme d'urgence tabax nañ fi moo waral yokk nañu bu baax a baax ndox bi nga xam ni mooy ñëw Ndakaaru mën nañu wax ni téeméeru ndox téeméer boo jël euh, si juróomi at yi yokk nañ si ñeent fukk ak ñaar téeméer boo jël te loolu lu nit ñi gis la ndaxte am nay jamono metti woon na lool wante alhamdulilah euh, nguur gi président de la république ak ministre bi gu gunge nañu si bu baax a baax euh, chaque at ñu ngi def loolu bala tàngaay bi ñëw ndax tàngaay bi la nit ñi ëpp lu ñuy consommer ndax sa saddaay bi moom consommation jafe-jafe yi ñuy am guñ ko am kaddaay bi euh, moo tax ñu dugal si alal bu takku mais boo weesoo loolu gouvernement bi tamit dugal na alal pour aar pour aar jumtukaay yi nga xam ni moom mooy togg ndox mi muy indi ndox mi tamit gis nañ ñu ngi fi xewoon si at yéegale ñu génn ren yaakaar naa gëj nañu dégg ñuy wax affaire panne te jafe-jafe ndox mi nii si yenn quartier yi benn machine paanul benn paanul mais depuis janvier ba février tënk nañu si ndigalu ministre bi euh, muy suñu kilifa euh, benn programme pour waajal tàngaay bi ñëw mooy programme bi nga xam ni moom nga ñuy wax programme de consolidation euh, de alimentation en eau daaw bu ngeen ni fàttali ñu ngi tënkoon programme bi ñuy wax programme de renforcement de l'alimentation en eau muy le PSDAC balay daaw programme d'urgence la woon mais ren nga ñi programme de consolidation mooy indi 47000 mètres yooyu pour lan consolidation ba parce que dañu yaakaar ni balay déwén incha allah KMS Croix dina ñëw donc daw bu métti bi yëpp xëy na dina wàññeeku bu baax a baax ñu dogal si lu toll juróomi milliards gouvernement bi teg ko si pour rek mu yokk nekkin euh, Sénégalais yi c'est surtout si contexte bi ñu nekk euh, mbas mi pour que ndox bañ a nekk benn jafe-jafe. wante ñun SONES ga ñu gis ni gouvernement bi gaf na lépp lu mu mënoon gaf na affaire effort yu bari bu même bu dee gañ ñi ñi ñi dañoo euh, yokku kaar même buñ ne gañ ñi dëkkuwaay yi gañoo soppeeku ndax léegi ay taax moo ëpp këru suuf yi wante gañu gis ni ndox bi nga xam ni gouvernement bi euh, indi na ko yëpp jamul ci kër yi bu yëpp demoon si kër yi kenn du am jafe-jafe wante entre Thiès ak Tëngéej wàññe nañ fa lu mat mille quatre cent maraîchers mooy ñoo xam ni nga ñuy bay bayu dër nga ñuy def ay supome ay ay tamaate ay xaal ay yeneen xeetu bay pour di ko exporter wala bu ko pour daan seen doole lu jaadu la wante ñun kat ah si li nga xam ni charte ah, ci gi ñu tegal ñun ndox bi nga xam ni nit ñi gañ koy naan ndox boobu nga ñu war a togg ndox boobu nga ñu war a indi ba si kër yi wante ñooñu buñ dul woon jël lu ëpp ndax xayma nañu daanaka vingt mille mètres cubes vingt mille mooy. Euh, li nga xam ni moom la dëkk bu tollu Thiès soxla par bis ci ndox loolu buñ ko dul woon jël nuñ koy jëlee ndox bi ak si Dakaaru di jaar ci surpresseuru Carmel ndox moomu dina am doole mën a àgg fële usine des eaux foofu nga xam ni fa lañuy ñuy séddalee ndox mi lii dem Parcelles Assainies lii dem mamel lii dem Madeleine yi dem benn tali et cetera te loolu bu amoon euh, jafe-jafe dina wàññeeku loolu tey surpresseur bi mooy booster bi nekk fii si Carmel ndaxte ndox mi il faut ñu may ko doole buy dugg il faut mu am doole buy génn il faut doole bi oppati wante bala muy dugg bu dee ga ñuy dagg tànkam buy génnaat ñu wàññi dooleem euh, ndox mi ak luñ ko mën a yokk yokk xëy na njëriñ bi gi mu war a amal population bi dina ges su boobaa ga ñuy naan a ah, gouvernement bi kat moo geful li mu war a def alors que xëy na am na ñoo xam ni boole wuñ leen si woon mu ngi si dugg donc tamit ñu leen si ñaan euh, tamit ñooñu ñu doxal si euh, compréhension ñu ngi leen ñaan tamit ñu xool ensemble yan pexe même bu dee gouvernement bi teg na yenn pexe yi ndax gouvernement bi ugal na lu toll si ñaari si euh, juróomi milliards ak genn wàll ci ay forage ay tuyaux yoo xam ne daf ko jagleel maraîcher yi nekk si ñaay bi mooy forage yi nekk Bertelan mooy bët Sénégal ñëpp xam nañ ko daaw rek tamit financé waat nañu benn conduite bu nekk fële camp marchand ginnaaw Tëngéej pour ñu yóbbu fa maraîcher yi am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla bañ leen ko waxee gaññikat ñi ñun kat gu ñun ñooy tere ku ñu ay mbokk yi nekk akaaru am ndox donc kat suñu compteurs yi dugalal leen ñu ko si compteur maraîcher yooyu donc la ñu dem ci forage yooyu mais gaf si am ñoo xam ni ah xëy na tool yi ñu amee gafa rëy lool xëy na tamit am na yeneen contrat yoo xam ne diggéen nañ ko bitim réew tamit bu ñu nangu bu ñu leen déconnecté xëy na dina leen indil ay gàllankoor mais proposé woon nañ leen yeneen pexe mooy un planning de raccordement wala un planning boo xam ni ñuy xool heure yi nga xam ni gañ leen gi ubbi wala bis yoo xam ne dañ leen di tëj pour que ñu mën a équilibrer système bi en attendant ñuy am yeneen pexe pour ñoom euh, am malheureusement ngi euh, si ëpp doole ñi nga xam ni ñoo si gën a jël ndox nanguwuñ ko ndaxte ay li ñuy jël si ndox wax naa ko mat na li Cees soxla si si ndox et ñooñu tamit il faut que ñu gën leen ñaan tamit ñu nangul ñu loolu ndax seen mbokk yi nga xam ne ñu ngi akaaru mën a jot ci ndox mi te que bu ñu toogee waxtaan ay pexe yu bari dina am wante suñu ittee e euh, li nga xam ni moom la ñu président de la république sas li nga xam ni tamit ministre bi fu mu toll ba biig si guddi une heure du matin mu ngi woon nañu suba il faut ngeen dem mën a expliquer nit ñi gën a expliquer nit ñi yoo xew mu mu ñu koy fàttali saa su ne loolu seen njëriñ seen euh, yokk seen nekkin mooy li nga xam ni moo tax ñuy sonn saa su ne et lépp lu ñu mën dinañ ko def ñu ngi koy sax gaf pour que mbir mi am amélioration et incha allah gëm nañ ni li nga xam ne lépp ñu ngi koy def fan yi gën di ñëw dinañu gis njëriñ bi et que euh, coupure yi dina xaw Arnal, la directrice générale de Seno. Et c'est avec plaisir qu'avec la SONES, nous avons souhaité vous présenter une partie des travaux d'urgence que nous avons lancés dès le mois de février pour pouvoir amener plus d'eau. Donc euh, nous avons défini un programme de travaux d'urgence à travers plusieurs opérations, vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui, à savoir de la régénération de forages pour pouvoir délivrer plus de débit, de l'équipement de nouveaux forages, ce que nous avons pu voir aujourd'hui pour pouvoir amener plus de débit, des travaux de surpresseurs un peu partout sur Dakar pour pouvoir amener l'eau jusqu'à certains réseaux qui en manquent, et euh, des maillages, des travaux de régulation de pression

fonctionne bien et amener il se peut aussi, parfois, les intempéries sont contre nous. On a connu euh, le week-end dernier des orages, euh, du vent, de la pluie. Et eh bien, comme on a beaucoup d'installations électriques, euh, mécaniques, électroniques, et eh bien, arrive parfois aussi qu'elles sont en panne. Mais nous avons tout fait pour que justement les équipes puissent intervenir dans le meilleur délai, jour et nuit, même dans des endroits isolés comme là vous pouvez le voir, pour pouvoir mettre le plus rapidement possible ces installations en fonctionnement. En fonctionnement avec de la qualité, puisque derrière, il y a chloration pour garantir une eau de qualité, eau potable dans les robinets. Alors, euh, nous avons euh, ce programme qui est porté par euh, chez nous, c'est nous, Madame Bousseau, que je félicite, que je remercie, puisque Madame Bousseau, jour et nuit, d'ailleurs en ce moment, il hein, faut le dire. Euh, elle est là et elle travaille euh, pour, tout le monde, pour pouvoir amener avec la volonté, même si parfois c'est compliqué parce que ben, les consommations augmentent, mais tous ces programmes-là sont là pour amener plus d'eau. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais laisser la parole parce qu'elle le mérite. Elle le porte, elle le vit, elle le transpire, ce projet. Croyez-moi, ce sont des, hommes et des femmes qui vivent comme vous, dans mais qui ont bien conscience que justement, on est là pour amener plus d'eau et euh, avec tous les efforts qu'on peut faire pour pouvoir amener l'eau, avec toute la technicité. Et tous ces travaux-là, c'est du concret. Vous les avez vus. comme c'est compliqué faire un forage, ça se fait pas en deux jours. Il faut plusieurs semaines parce qu'il faut, prendre, faut forer jusqu'à mètres, mètres de profondeur. Il faut crépiner, il faut mettre les massifs,

Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les productions fonctionnent comme elles n'ont jamais fonctionné, c'est-à-dire au maximum. Nous les usines, tous les forages qui fonctionnent avec zéro panne. Nous avons euh, des collaborateurs qui sont 24 heures sur 24 sur le terrain pour pouvoir au mieux servir. Alors c'est vrai que nous avons eu malencontreusement les problèmes euh, de défaillance dus euh, aux intempéries du week-end dernier et comme aujourd'hui vous le savez tous. Tout ce qu'on produit, bon, ça part de suite avec les chaleurs, c'est vite consommé. Lorsqu'il y a des pannes, ben, ça met un certain temps pour pouvoir revenir au niveau normal. Pourquoi Parce que dès que l'eau revient, tout le monde euh, ouvre le robinet, ce qui est normal, et donc on met du temps à recharger. Mais croyez-moi, les travaux d'urgence ont été lancés dès le mois de, février, les usines ont été entretenues, les ouvrages qui méritaient de travaux ont été faits et les équipes ont été équipées pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais, que ce soit sur le réseau d'eau potable, que ce soit sur les usines. Mais vous savez, l'eau est une ressource précieuse, c'est vital, mais on doit tous la préserver et préserver notre ressource en essayant aussi de faire des économies d'eau. hein, dans nos usages habituels. Et vous allez voir, on va lancer aussi euh, une campagne de, de, sensibilisation aux économies d'eau. Euh, évitons d'arroser euh, quand il fait euh, chaud et que les consommations sont importantes. Et il y a comme ça beaucoup de gestes qui permettront de préserver l'eau et de la conserver pour le maximum à des usages plus vitaux. Donc euh, oui, nous avons mis ce qu'il fallait de nécessaire en équipement, ne serait-ce que les collaborateurs, hein, ils ont tous été équipés de, de tenues de sécurité, d'outillage, de véhicules, pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, le délai est respecté. Les usines sont excellemment euh, entretenu avec tout le matériel, le stockage nécessaire. Et croyez-moi qu'en qu période aujourd'hui de Covid, avec euh, les, problèmes qu'on peut avoir de transport, on est au rendez-vous avec tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des usines, notamment les réactifs, le chlore. On a au moins pour six mois de stock pour pouvoir faire fonctionner convenablement toutes les usines, tous les forages, dans les meilleures euh, dispositions techniques et surtout avec tout le matériel ci man la Adama Sey Ndiaye bu Bousso directrice performance réseau bu Sen'Eau euh, comme DG maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal DG sone samay kilifa ñoom ñi ma bàyyi ma mën a wax euh, nous a bi Sen'Eau ñëwee dafa proposer benn programme boo xam ni dafay euh, améliorer. ndox mi dugg Dakar ak ni ñu koy séddalee parce que euh, ñun ñëpp xam nañ ne Dakar am na ay zones yoo xam ne duñ leen mën a alimenter ci journée bi donc loolu ñu ne nañ ci jóg ñu taxaw ñu nag SONES ñu def benn programme boo xam ne milliards yu bari la ëpp na cinq milliards euh, boo xam ne dafay permettre ñu def ay forage yu bees forage yi nga xam ne li liñ doon joxe joxe tuñ ko parce que avec le temps dañuy wàcc tuuti ñu yëkkatiwaat leen Euh, ñu xoolaat aussi usines yi lépp lu luñ ci mën a redressé ñu defaat ko ba nga xam ne usines yëpp dinañ fonctionner à leur pleine capacité bu loolu woyee ñu xoolaat suñu réseau lan lañ ci mën a def réseau yi nga xam ni ñoo gën a ñoo gën a néew doole ñu redressé leen ba nga xam ni volume boobu bu ñëwee ñoom dinañ ko mën a recevoir ba jox ko ñi nga xam ni ñoo du woon am ndox le jour ñu xoolaat yenn zone yoo xam ni même bu ñu redressé pour ñu jox leen ndox journée bi dina compliqué parce que Dakar li ñuy suturé dafa bëri ñooñu dañoo décidé ñu def fa ay booster yoo xam ni H24 ñun ñooy xool nuñ koy alimenté mais dinañ leen mën a jox ndox euh, dina ci bokk parcelle Assainies dina ci bokk Grand Médine dina ci bokk benn tali ñaari tali yéen boo ñëwee Rufisque donc Baraka zone yooyu yëpp. dañoo élevé ba nga xam ni ñun ak suñu réseau li nit ñi di suturé journée bi day tax ñoom ndox mi day néew doole du fa mën a egg donc ñooñu incha allah bu loolu paree ñoom dinañ mën a am ndox euh, ñu xoolaat am na parti yu bëri fi mu ne nii commencé nañu euh, am ndox dëgg bëccëg bi boo xoolee Arafat 1 2 3 4 à Rufisque ñoom mosuñu woon am ndox bëccëg bi léegi ñu ngi am ndox bëccëg bi soo demee ci banlier bi quartier yu mel ni notaire ay mbodd ñu pare nañ fa parce que li ñuy wax quand même ñu ngi koy réaliser ñoom ñu ngi may dégg ñu ngi am ndox le jour Euh, ñu ngi xaaraat aussi lu juróomi forage yoo xam ne d'ici fin juillet dina volume bu bu bu am doole la dinañ ko injecté waat ci réseau bi pour améliorer euh, li ñuy jox nit ñi ndox ak aussi ñi nga xam ni daaw ñu am ndox jour ñuy mën a am ndox te incha allah ñu ngi ci te bu ñu tëddee nelaw loolu lépp dafa pare incha allah. Ah, c'est Imam Youssoufa Sarr euh, président du de la fédération sénégalaise des associations de consomateur porte-parole des consommateurs aujourd'hui avec mes collègues qui sont là. Euh, euh, le DG de euh, SONES ak DG Sen'Eau ñi nga xam ne boole nañ ci visite bi ni ñu ko yàgg a def parce que ñun euh, yàgg nañoo ñëw fii. yàgg nañoo ñëw ci ouvrage yu SONES wax dëgg yàlla te dañu toujours de concret la ñuy wax dañuy wan loo xam ni dañu kii dañu gis ni lii am na. ñoo ko gisandoo suñ bopp kon ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di eh, nag massaw ñi nga xam ni ñoom ñu ngi ci Dakar ak li ko wër wala sax feneen fu nga xam ni eh, mak ñàkku ndox mi sonal na leen coono goo xam ni wax dëgg yàlla eh, metti na surtout ci jamono ji nga xam ni feebar bii mi ngi mi ngi ci suñu kaw te feebar boobu bu nekkee suñu kaw ñun ñi dafa am lu nga xam ne daf ñu war pour ñu mucc ci feebar bi ndox moo ci jiitu mooy raxasu mooy et cetera eh, mais loolu nag boo ko amul jàpp nañ ni metti na loolu mais nag ñu jàpp ni loolu bu ñu muñee tuuti peut-être ci li ñu gis ñun nii li ñu wan nii nii eh, gis nañu ni eh, li ñu techniciens yi wax ak ñeent cinq forages yu ñu am bu ñu leen boolee fii balay fin du mois de juillet daañu mën a am lu mat juróom fukki junne ci mètre cube bu ndox bu mën a ñëw Ndakaaru loolu mi ngi war a mën tolloo ak production eh, usine de Niit bi nga xam ne dafa am problème. Hmm. bu boobu bu loolu amee on pourrait mën nañu jàpp ni kon euh, euh, équilibre dana am entre demande bi ak nu euh, mu tuddati kon loolu la ñu si waaye xam nañu nag lii yëpp nag mbir la yoo xam ni dañu ko ay mbiru ndiganiku la hmm. waaye lii régler suñu problème dëgg-dëgg mooy mbir mbiru KMS 3 bii. nga xam ne ñu ngi ci wan ay at nañu fexe accélé lu ñu ci mën a ñu def ko ba nit ñi mën nekk ci jàmm de usine de dessalement bi nga xam ne aussi moom itam moo war a ñëw pour régler problème bi ba ba ñu mën a noyyi ndax problème ndox du lu ñu régler définitivement buñ fekk nit ñaa ngi yokk fekk nit ñaa ngi am ay ay soxla ndox ndox day du doo régler problème bi waaye daañu toog ay at bu ñu régler problème dessalement régler problème mu KMS 3 daañu toog ay at quand ci ci jàmm duñu wax waxu ndox yàlla na ko yàlla defal.